meilleur Ngoye TV c'est meilleur ñu leen di ziar di la ñaanal jàmm ci di ko sàkku si mën ngeen a abonné ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu. mën di seetaan lu ñu mën di dugal nga dem seetaan ko incha allah. acca asalaamaaleykum mbokk yi seetaan Ngoy TV ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax te nag dañoo am naqar ak tiis boo xamante ni wax dëgg fa yàlla dañ ko bëggoon partager ak yéen xam naa yëg ngeen ko sax comme ñun ñëpp niñ ko yeggee. muy agression bi nga xamante ni def nañ ko journaliste bi nga xamante ni mooy patron 7TV muy Maymoun Maymouna Ndour ah mu doon lu ñaaw a ñaaw a ñaaw a ñaaw Sénégal yëpp itam kenn rafetluwu ko vraiment euh, surtout mu dal ci kaw jigéen ah ñun nag li ñuy wax ci actualité yu mel nii sax bariwul mais lii nii dama ne képp kenn waru ci noppi ku mën a wax rek war nga ci mën a wax mais nak wóolu nañu suñu police nationale wóolu nañu suñu gendarmerie nationale japp nañ ka dé barki alcorane la len wax ah, bu len nexé bala ñenti fan ñetti fan ñi def li ni ñu japp leen ndax ay Sénégal lañ ci biir réew mi lañ dëkk waaw kon li ni lu wara jeex la ci Sénégal lu wara mëna ñak la yitam ci Sénégal amna lo rafetul rafetul en jigen def sa émission boy ñibi ay nit kar jam la ay paaka mënoon nga ci sax ñàkk sa bakkan te muy perde de famille ah, di yaay ah loolu lu ñaaw la Sénégal yëpp a ko ñaawlu mais nag dafa am ko xamante nii man du tudd turam tey ci suba dañ ko invité rajo muy wax ndaw si ay kaddu yu tegginawul ay kaddu yu ñaaw a ñaaw mu koy wax ay kaddu yu ñaaw a ñaaw ci koo xam ne dafa nekk ci at ci ci problème même bu fekente ne sax ando ak mom ci gis-gis ando ak mom ci limuy def même bu nekké ci ay jafe-jafe wala ci ay tolof-tolof mosawu mais pour lan dak man ci sama bok bok bogul sama candidat tax nga koy yek lu melni ni rafetul nañ bay lolu nit ki su àndut dak mom rek sama non la lolu baxul Sénégal ben bop la ken mënu xam ñaar ku neex am farfu la neex am na journaliste yu bari yoo xamante nii fii nii dañuy dëkk di xas état bi vingt quatre heures sur vingt quatre am na télé yoo xamante nii chaque vingt quatre heures sur vingt quatre dañuy xas état bi kon Maimouna bu ñëwee moom itam féete benn côté bi nañ ko ko nangul mais bu amee problème itam nañ ko mosawu te moom ñëpp lay dalal émission ñëpp lay dalal ba amul ma samba ak ma demba ñëpp lay dalal ñëpp lay waxal kon yaakaar naa ne kaddu yu mel nii nii doomu aadama waru ko sax di yëkkati ci mim réew man su ma nekkoon ci rajo boobu wala ma nekk responsable ci rajo boobu bi mu waxee kaddu boobu dama ko naan ko ay eh, émission bi na yem fii mu gën dem ñibbi dafa am loo xam ne rafetul ci Sénégal dafa am loo xam ne rafetul ci Sénégal te ñu ngi koy xool nag te bu yàggee wallahi asi mën naa jur lu ne il faut nga ànd ak ki ma àndal wala yow baaxoo du ma ànd ak yow dina may xel di saaga guddi ak bëccëg loolu pour lan la nit ku nekk bàyyi leen ko ku ne nekk sa am sa suwaa bopp waaw politiciens yi bari nañ fi ku ne na bëgg ku la neex loolu mooy yoon ku ne na bëgg ku la neex waaw ku ne na bëgg ku la neex may bu Maimouna Ndour du moom kese moo fi yor tele wala moom kese moo fi yor site internet di dal ci benn euh, ci benn cas di bàyyi beneen am na ñoo xamante ni vingt quatre heures sur vingt quatre ñu ngi ñu ngi xas kenn nii ñu ngi xas Ousmane Sonko ñii di tag Ousmane Sonko ñii di xas Macky Sall ñii di tag Macky Sall mais loolu mooy démocratie mais àndut ak ñun rek xam nga dañ koy plainte ak dañ ko di ko wax wax yu ñaaw yoo xam ne kenn xamul lan la lool nañ ko arrêté. nañ ko arrêté suñu police nationale nag ñu ngi leen di ñaan ak gendarmerie nationale lii nii yal na leer oui pour yow mi nga xam ne da ngay toog di jaaxle doo am benn actualité ci Sénégal wala sax ci bitim réew Ngoy TV da ngay am lépp luy actualité Ngoy TV say information day nañ Ngoy TV daal c'est le meilleur bu nag yemul ci lool de lépp luy événement lu ci mel ni làmb wala cant ak lépp lu mënti doon Ngoy TV pare na pour gunge la wala danga nekk mara bëgg ñëpp xam la xam sa xam-xam wowal gaaw Ngoy TV dëgg dëgg Ngoy TV le meilleur c'est donc abonné sur TV ngir di am actualité ak information yu leer un service commercial Ngoy TV 77 552 83 82 wala 77 950 33 19 ou 33 868 86 22 Ngoy TV dal c'est le meilleur abonné ngir di am actualité ak information yu leer Ngoy TV dal ay <laughs>